mbokk julli di asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu seen mbokk daara Abdoulahi Gaye moo leen di nuyu di leen ziyaare ci subak talaata gi di ñaan yàlla mu defal ñu bëccëgu jàmm nangul ñu suñu jaamu yàlla def ñu dëgg-dëgg jullit sàmmal ñu suñu ngëm bam bañ a yàqu bu ñu demee mu mën a bég si ñun bu baax moom suñu borom subhanahu wa taala waaye di ko ñaan yàlla ñu musal ci jàngoro bii musal ci ku ñu xam macha allah ak jàngoro yii nga xam ne lëmbee na àdduna yëpp yàlla na ko fi jëlee delloo ñëpp seen sago barke alquranul karim yóbbalu tey bii dafa am rek ñëw di la jàggal mbir yu am solo yoo xamante ni soo ko boolee da ngay xam ni boo ci bàyyee xel rek sa dund dina neex waaye fa nga jëmit di yow yowmal xiyam foofa jàmm nga fay am waaye boo ci bàyyiwul xel sa dund day karaj da ngay nekk ci coona léegi nag mu limal la ko muy ay mbir yu am solo bi si njëkk mun la laa tashtaki min al ayaami fa laysa laha badilun nee na bàyyil foo toll di jàmbat fan yi rek bis bee passé coono yama ca daj fitna yama ca am di jàmbat rek jàmbat ndax nee na loolu moom wees na ba pare bis moom bu xësee ba raw la moom dootul dellu siwaat kon loo ca deful woon bu yóbbu nga xam ni romb na kon toog rek di lamante wu di jàmbat naan bërki démboo njaay wala semaine bee wala weer wee at mële mënoon naa lii waroon naa def lii waroon naa def lii te defoo ko ne na raw na la kon li la war mooy jéem a xool li nekk sa kanam waaye bis boobu rëcc la moom bàyyi ko te xam ni dem na mu ni la loolu moom loo war a bàyyi xel nit day avancé waaye bu du toog di lamantewu di di naqarlu di jooylu di tristellu ci loo xamante ni weesu na te def ca lam ca waroon def da jéem ñaan ëllëg mu def ca la ko war ñaareel bi mun la wala tabki ala dunia maadaama axiruha rahil nee na àdduna bul toog di jooy ci àdduna rek àdduna lépp nga def ko ci àdduna ndax kat àdduna bi jarul yenn yi ndax mujj gi mujj gi rek mooy da nga fiy jóge waaw an nafsu tabki ala dunia wa qad alimat anna salamata minha tarku ma fiha ca waxkat ba day wax ni bakkan day jooy ci àdduna rek àdduna rek di wax waxi àdduna ak lu ne te xamul ni àdduna moom li la ciy muccal mooy bàyyi ko li mu yor ndax yàgg-yàgg rek da nga jóge te soo fi jóge loo fi amoon daraan la bu ko yóbbaale fi nga koy bàyyi ñetteel bi mun la wajaal siqataka billaahi laysa laha mathil nee na wóolu bi ngay wóolu yàlla bu mu yam ak dara wóolul yàlla bu baax a baax a baax a baax xam ni lu xew borom bi subhaanahu wa taala la gin nga wóolu ci yàlla bu baax a baax a baax loolu na doon sag màng eh, di ko na doon sa lépp gëm ni wóolu bi nga wóolu yàlla tey bu méttee suba dina neex dina gën a yomb kon wóolu noo yà wóolu naa yàlla te doyloo naa ko mag mu baax nee naa leen ci réew mi dinay wax ni Sénégal gëm na yàlla waaye wóolu ko dañ ko war a wóolu nag mu jeexale ko nag ni la wa tawakkal ala allahi xaqa tawakkuli fa innahu ala kulli cheyin wakil mun la na nga lu ci yàlla dëggi dëggi wàkkeerlu doyloo borom bi subhanahu wa taala soo ko defee day dëggi dëggi wàkkeerlu nag waxuma da wàkkeerlu loon tute dëgguwul ci yow nee na di nga xam ne yàlla mu méngoo mbir yëpp te loo ko bawal moom borom bi subhanahu wa taala dina la ca defal lu ëpp sa njort yàlla nañu yàlla may jikko yi ak melokaan yu wa yi wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu